toujours samay abonné kontaan naa bu baax si yéen continuer leen di abonné ci seen YouTube bi bal lan ma bal naa leen yalla yàlla boole ñu bal ñu fekkee déwén yu bëri ngi ñëw nak ci international sénégalais mu nekk ndanan mais mu nekk gaynde mu nekk kan Sadio Mané té bu wax si Sadio Mané dañuy wax si qualité yu nekk ci mom Sadio Mané ndanan la demb ci mardi wane nako mu nekk retour demi-finale Ligue des Champions mu duggal bi bu amul fenn ndax bii bu mu dugal bu rëy mais aussi bii bu compliqué dugal la moom Sadio Mané mu dugal ko facilement dafa ñëw mu fokkati bal bi ci gardien bi défenseur bi ñëw mu éliminé défenseur bi mu jàkkaarloog kaay moom Sadio Mané dugal bii bi tranquille comme Sadio Mané mérité na Ballon d'Or européen te moo ko war a jël moom Sadio Mané ndax pousse na Liverpool bu ñu final. jàppale na équipe nationale bu Sénégal ba ñu jël coupe d'Afrique jàppale na équipe nationale bu Sénégal ba ñu qualifié coupe du monde deux mille vingt deux Qatar Sadio Mané fulla fayda jom day dem ba mu jeex lu ma gën a neex si Sadio Mané bëriwul wax lu ma gën a neex si Sadio Mané dafa wàcce boppam tubaab yi xam nañ ko européens yi xam nañ ko àdduna bi yëpp xam nañu Sadio Mané dafa wàcce boppam. te chaque jour mu ngi koy wone xol bi dara nekku ci mu nekk ku am fulla mais mu nekk ku am jom mu yéenal ñëpp jàmm même ci biir terrain bi noonu la mel doo gis Sadio Mané mu def violence mais aussi doo gis Sadio Mané mu mu mu gaañ nit ki walla mu sonal nit ki wala mu def geste bu ñaaw chaque jour rek moom mu ngi tranquille chaque jour mu ngi wone boppam mu ngi am vivacité mu ngi am jom dugal mu ngi am jom équipe kon moom Sadio Mané danan bi mérité na ballon d'or européen ren mom moom moko ko ren mom nañ ko ko jox ñun ñi ngi fii pour pour Sadio Mané ndax daanan la wane na ko meilleur joueur européen la moom Sadio Mané malal laal seeni Sport continuer leen di abonné ci sen youtube bi may seen bi doole bu baax lien bi muy ci tiktok samay abonné kontaan na bu baax si man la ak yéen ci kaw si